about sunrise? What about rain? What about all you said What about flowering fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop notice? all the blood we shed before. Did you ever stop to notice this crying earth is weeping sure? jërëjëf mbokk yi béggee wal fajri nuyu nañu leen amin mbégte dellu seeg yéen ci seen émission làmb ji mbokk ni ñu koy defee bu làmb sàjjee toppal leen gan ñoo xam ne dañoo bokk ci làmb indil leen waxtaanu làmb noonu lañu ko fas yéene wéele waaye it bala nu ciy gën a sori ñu yeesal di nuyu ñëpp ci biir nuyoo bi ñu ciy jiital kilifa diine ak kilifa aada yi di sàkku seen ñaan ci réew mi ndax soo duggee ci gaal bëgg mucc da nga naan yàlla gaal gi borom bi yàlla na dëkkee sàmmal boppam ba mu dëkkee jow ci géejug bànneex ànd ak mbeex mu sedd te du ñi nga xam ni ñoo feebar na ci kër yi ñi feebar na ci hôpitaux yi ñu leen di bàyyi xel borom bi yàlla na leen boole fëgg seen bopp ñi nga xam ni caabi daf leen féete ginnaaw borom bi yàlla na seen wéttal wéttali leen boppam taxaw leen ba nu génn fa ak jàmm suñu mbokku émigré wéy daani doole ñoom it fàttewuñu leen ak fépp fu nu mën a ne ndegam teraanga leen tax a jóg borom bi yàlla na leen teralal boppam mbokk yi gan ñi nga xam ne ñoom la ñu fas yéene àndal ci seen mission lamb ji sama ndijoor maa ngi fi ak mbaytin bu nu ne dem ci école de lutte Mor Fadam Euh, ginnaaw mbaytin ba tey ñoo ngi fekk King bu nu nee King Kong xel yi dem ci écurie Fass waaye ñoo ngi fekk Thérèse Ndiir bu nu nee Thérèse Ndiir xel yàlla def moom mu bëre demb ubbi saison Serigne Modou Niang yàlla def mu am ci ndam loolu lépp dinañu ci waxtaan ci biir làmb ji ku ci mel ni mbaytin ku ci mel ni King ñoom it ñu bokk ci làmb ji saison bi door ñuy xaar combat loolu lépp mbokk yi dinañu ci waxtaan ak it euh, tàkkusaanu làmb gi nga xam ni Pape Abdou Fall tëgg na ko tey grand combat bi doxoon diggante ki nga xam ni moo di Kayridé ak Gabar Ching mbokk yi kon loolu lépp jàngatu làmb la ci biir émission làmb ji waaye ci kanam lay doon Mbaye Tine maa ngi lay nuyu. waaw Alioune maa ngi lay fay. la waa école de lutte Mor Fadam. waaw ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi. Mhm. ñu ngi sant suñu ñaari waajur. di sant suñu sëriñ Cheikh Modou. di sant waa géej waaye gi ñu jóge di sant tamit ñi ma àndal ku mel ne Elimane ak Moussa ak Lamine Thioub. Mhm. waaw ak ñoom xaadim yëpp di sant géej waaye yëpp nag. ah di sant Fifty nag. Mhm. Euh, di sant Fifty muy kàddu yu am solo ci nga daanelee ci laa doon bëgg a ñëw. Mhm. Fifty Cent moom it ñu koy nuyu au passage li mu def ci mbaytin day wane nii loolu li mu bëggal boppam moom la bëggal mbaytin dafa jël téléphone am woo ma Papa ma ni ko naam mu ne ma amaguma combat mais inviteel mbaytin champion la dafa war a bëri avance yaa ngi dem na ko gars yi jox komba mhm. loolu it day neexal ànd kenn ku ci ne écrit boo mënti ne la nga bëggal sa bopp bëggal ko ñi nga xam ne ñooy say naataango yi nga xam ne ñoo fa ne yokkute làmb la kon témoignage ci moom 50 Cent di ko bàyyi xel bu baax a baax King Kong lay nuyu. maa ngi lay fay Pape. ana waa écurie Fass. waaw fii écurie sant yàlla. Mhm. di sant groupe yëpp. sant sama ñaar waajur. Mhm. di sant ñi fa nekk yëpp. sant sama mbokk mbër yi fa nekk yëpp. maa ngi leen nuyu ku si nekk sa tur sant. di sant Habib bu ma àndal fii. di gërëm ñëpp daal. rawatina waa Wakam. gis naa luñ ma taxawee. sama combat bu mujj bi presque vingt cinq moo fa génn. moo génne waxaam ñëw moo génne waxaam. gunge si la waaw mhm. ñëw gunge ma si. ñoom amoo seen fay. Mhm. te ñoom laa am. amoo ku dul waxaam sama mbokk Casamance yëpp maa ngi leen sant képp ki bëggee King rek maa ngi lay sant xam naa ñëwaat naa. Mhm. waaw defar naa ñëwaat naa bu bees tàq. ñëwaat nga lu bees loolu dina nu ci waxtaan ci kanam Thérèse ndiir maa ngi lay nuyu. waaw Pape ñu ngi lay fay. ginnaaw ba nu sante yàlla julli Eh, di ñaanal sunu ay waajur. Mhm. fan nekk gënal leen fi ñu jógee. allahumma amiin eh, mboolem mooy dawlu. di ñaanal waa Thiaré Gueye ñépp jàmm. Mhm. di leen nuyuwaat bu baax. di leen santaat di leen gërëm bu baax a baax a baax. Mhm. maa ngi sant yàlla bu baax. Eh, Mbaye Tine su ñëwee ci yow saison bi fi mu toll door na. foo toll. waaw Mbaye Tine moom mu ngi ci ay entraînement di déglu Mor Fadam ak ay mbokkam. boo ma waxee combat rek man pare naa. Mm-hmm. waaw. bu ñu la waxee combat yow pare nga. pare naa King Kong mm-hmm. yow it uh, boo xoolee daaw nga bëri woon ak léegi yaa ngi toog diir di xaar combat taxawagul. waaw daaw laa bëree boobu ba léegi maa ngi toog di xaar man. Mm-hmm. bu bële nag ma toog di xaar maa ngi liggéey lu mu mm-hmm. manqué woon yëpp mm-hmm. lu tax ma ñàkk yëpp maa ngi siy liggéey mm-hmm. te gëm naa yàlla moom si kàttanu yàlla saison bi da ngeen gis king king bu bees li la manqué woon lan la non lu mu manqué woon bëri woon na sax lu ci mel ni lan la non lu si mel ni maanaam lépp daal côté yépp la mu manqué lu mu bëri laaj rek xam nga donc sama combat bi boo xoolee ni mu demee limousine nga mujjee bëreel xam naa dañuy ànd ak waari ci topp combat king kong limousine bu ko defee bu nu ko xoolee dellusiwaat defaat ci jàngat bu yaatu kon sa combat dañ ciy ñëw léegi nga ni ba nga ciy jógee li la manqué woon xam nga lan la. dem nga liggéey jógee ma xam lu bëri ko mhm. te it aussi xam nga làmb moom làmb la rek. Mhm. te am na si détails yu bëri sax mënu ma ko wax mais lu mu mën a xew moom man xam maa ne combat bam mhm. am na lu lu mu demee daal mais nag du ma si wax ko am na lu mu demee lu mu tënk. non non garawul garawul làmb la rek. xam nga keroog bëri nga indi woon wala xeex. non keroog lépp laa indi boo xoolee combat boobu. li mu si def. li mu si dépensé. musuma ko def te confiance bi moom sax mu combat bi. Mhm. mosuma am su benn combat bu ma mhm. dalee bëre ba léegi. mais moo ñëw combat mi doon loo xamante mu yomb lool lool lool lool bëreewuma xeexuma ma daanu mais na dem si sant yàlla. ñu xool combat boobu dellu si bu nu ñëwee gën ci gën ci def jàngat. te King Kong ak Limousine mbokk yi journée mu ñaax production grand combat baa ngi noonu ñaari mbër yaa ngi léewtoo King Kong bu faas moo yor ngemb lu weex Limousine bu kaay baax yor ngemb lu xonk journée mu ña production. alxamis ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai atum 2014 mbokk yi fi ca Stade Iba Mar ñaari mbër ngi léewtoo King ak limousine. xoolee limousine moo sut ci taxawaay dafa yug tolloo King Kong ñi ngay léewtoo ñaari mbër yaa ngi dégloonte ñaari mbër yaa ngi dégloonte ñu ngi léewtoo léewtoo bu kur bañ dalagul congaamagul King Kong mépp na léegi mel ni kuy bëgg a dem limousine moo cokkaas limousine moo cokkaas noonu limousine sànni na King Kong baare King ak limousine limousine déplacé wu na ki ko moom gis nga ko noonu limousine sànni na gauche droite ki ko ak limousine ki ko ak limousine tournée bu ñaaw production alxamis ñaar fukki fan juróom-ñeent weeru mai atum 2014 limousine door door na ah ki ko def na léegi taxawaat ki ko ak limousine jàppante nañu ki ko ak King Kong moo déplacé wu noonu King Kong ak limousine limousine bu tëngeej moo nu woon ginnaaw King Kong la nu jàkkaar lool moo jóge écurie Fass limousine sànni na léegi limousine door na King Kong teggi tànkam King Kong ak limousine limousine teere loxo yi lay defaraat noonu King Kong na waaye dalul ak limousine jongonte Limousine gëdd na ko Limousine door na ko mu daanu Limousine gëdd na King daf ko fekk door ko mu daanu combat baa ngi noonu Limousine bu kaay baax moo daan King Kong bu faas daf ko door daanu combat baa ngi noonu Limousine moo am ndam ci kaw King Kong Limousine moo am ndam ci kaw King Kong bu faas gis nga noonu King Kong bu faas ma nga yóbbu combat baa ngi noonu ndeysaan ndeysaan seen na ak jàngate combat bi mais mooy li ma la waxoo départ jëloon nga ko nee naa la taay yi bokkul kee gën a ndaw et puis euh, comme ko agressé mënu ko daan parce que ponkal mu toll nii xale bu toll nii foog nga tekk lu mu attanul te kii mënul tekk xale bi lu mu attanul moo tax muy combat bi nga xam ni moom nga mujje bëre ci lañ toll woon di ci waxtaan léegi yàlla def nga am ci défaite dem liggéeyaat loo xam ni jàpp nga ni fi nu toll boo amaatee combat di nga ko indi bégalee ko ñi nga xam ni ñoo ne ci ginnaaw King Kong. effectivement man xam nga comme dama am ay staff. Ah, mooy li ma la wax yoo xamante ñu may jàppale. Mhm. te it aussi xam nga làmb boo doon daan nga dem ba si ngay am ay ay. mun naa am sax du tolof la mais am ay kale kale yoo xamante ni xamoo sax nu mu demee. Mhm. laaj na nga toogaat say mbokk toog waxtaan ak ñoom. Mhm. xool lu la manqué nga dem wuti ko. Mhm. nga ñëwaat comme ñëpp xam. bon man si tànk yooyu laa bu ma jógee si combat bi bon def naa si lu bëri yoo xamante ne maanaam xam nga préparé waat pour ñëwaat pour bëggal samay supporters. boo xoolee stade bi lu mu fi indi kaar. samay supporters yi bëri sa juddu indi naa vingt cinq kaar. Habib bii mu àndal du ma bàyyi may fenn. yaa ngi dégg def si lépp si combat bi comprendre nga la ñu ma war a jàppale jàppale nañ ma. Mhm. si si si lépp daal. si lépp yaa ngi dégg lu ma la. Mhm. xam nga moom ma dem combat bi dem nii mu yomb lool lool lool am lu ma metti mhm. terewul supporters yi ànd ak man ñu ñëw gunge ba kër ga. ñu ne di courage ñun ñu ngi sa ginnaaw tey ñu sa ginaaw ëllëg. yaa ngi dégg da nga daan am combat fi nga dem yàlla may la ndam nga ñëw fi ñu bëggee fi si koñ bi. ñëpp kontaan comme bu demee nii sante ko yàlla quoi xam nga. jarul sax nga si am ñaar. làmb la xale nga ça veut rek ci kanam bésu ndam bokkul ak bésu defet. effectivement jàngat jàngat bu yaatu ba am solo la. Thérèse Ndir démb yaa bëre journée bu ñaa production yàlla def nga am ci ndam. Mhm. Euh, nga daan ci cinquante 52 bu way moom it ñu koy bàyyi xel di ko encouragé xale la lambam ci kanamam na defarwaat. Mhm. Euh, fi nu toll combat bu neex la parce que da ngeen doon ñaari adversaires yi xam ni yéen a tolloo. ci jëmm tolloo ci gabarit booy xool. Hmm. dellu silma ci combat bi par rapport ak préparation bi ngeen waroon ubbi seen saison. waaw Pa Aline ñu ngi lay ñu ngi lay ñaanal yàlla quoi parce que yow danga xam làmb quoi da ngay wax si làmb loo xamante ne euh, boo ko waxee du dañ te nit du ko dindi bi nag jël nañ ko au sérieux quoi. Hmm. entraînement si lu ñu war yëpp <coughs> dañ doon dem def trois séances hmm. par jour. trois séances par jour trois séances waaw. Mm-hmm. entraîné si lu metti ba mujj gi dama def dama entraîné ba mu mujj gi dama bàyyi woon deux séances sax def benn séance. Mm-hmm. mais en combat bi daal jëlee woon nañ ko au sérieux ba nga xamante ne ndam rek lañ su bëggoon. Mm-hmm. te yàlla may na yàlla may na leen ko ci. kon ci la ñuy àndee xool tàkkusaanu làmb gi nga xam ni moo Modou Niang tëgg na ko démb ubbee ko saison moom it ñu koy nuyu mook staffu Mouniang production yëpp ñu leen di a di leen ndokkeel ci saison bu yees bi nga xam ne ñoom it door nu liggéey bi ñu dem stade Iba Mar fekk fa Mouniang Production ndeysaan Mbaye Sow amateur fa teggi tànkam ñëwaat daje nañu ndeysaan ñaari mbir yi dajawaat nañu mu jël dóor na dóoraat mu jël ak amaas ñoo day ña nga jàppante mu jël ak amaas ñoo day ña nga jàppante ah jël boo dóor dóoraat mu jël ak amaas ñoo te ba tey ña nga daje ñoom ñaar ñaari bëri ñu ngi dégloonte ñaari bëri yaa ngi dégloonte tey ña nga jël ak Ama Siñoor Ama Siñoor door na door na xëccal bëtt na ko ah xëccal wër na ko ndax ba jël na ko combat ba jeex na xëccal ba kii Fass daan na Ama Siñoor ba kii Falaye Balde combat ba jeex na xëccal moo daan combat ba jeex na xëccal moo daan. biiru assurance bi waaw xoolal laa ilaha illallah barke yàlla fee sax ci géew ba moo ko dàq melul melul Diouf tàccu yee sax a dàq de tàccu yee lamb ji kon assurance mooy gagné ah kon assurance gagné par avertissement ndaw gañe bu géey ndaw bañe bu gañe bu géey laajtal ma ana Saamu Kaani Boy Niang numéro 3 ak Saamu Kaani Pape Alioune ana Saamu Kaani ah Saamu Kaani pata astafurlah moo am yaram eh, eh medun mais Saamu Kaani danañ ko rey Saamu bëjëg la eh Saamu Kaani ngay doon Boy Niang numéro 3 moog Saamu Kaani la mais yow dinañ rey Saamu Kaane Amirul Saamu Kaane ak Boy Niang numéro 3 et eh, Mansour eh dugg Saamu Kaani waaye kañ kii kañ Saamu eh, kii kañ Saamu netetu eh, kii kañ du Saamu Kaani kii kii kañ Saamu uul la <laughs> kii kañ Saamu uul la Boy Niang numéro 3 daan na Saamu uul. eh mais ñii ñu ngi xeex ah. ah? Agogo ak doomu Diourbel ñu ngi xeex eh jël nañ tànk bi jël nañ tànk bi. waaye billaay xale bi moo moo moo moo tële bëre jëlaat na tànk ba resu na waaye bi boo ci mënul dara ba ko. da koo màtt sañ na ko de. ah avertissement ah da koo mat wax naa la da koo mat dégg nga da koo mat ah. mat de moom bokk mat de mooy lay wu jeex. kookal la mat na ko yow arbitre <laughs> arbitre def na ardo <laughs> Xeeru Ngor ak Baye Fall numéro 2. mi sama ginnaaw gaañ nañ ko ah bi gaañ nañ ko de. eh jël nañu tànk Xeeru Ngor Baye Fall nooju nañ ko daan ko daan ko Xeeru Ngor daan ko. loolu la en kañ ah ndeysaan kii kañ Baye Fall la ndeysaan waay. daan ko waay Xeeru Ngor na ko. Xeeru Ngor tànn na Baye Fo kii koy Baye Fo numéro 2 la. en tant président bi mooy Moussa Niang may seen mag ñoom ñëpp topp sama ginnaaw man loolu laay yëg dama yëg ne ñoom dañ ma bëgg jiital ma jiital bi cër la buñ ma jox maa ngi jéem a def lu ne pour mériter ko. lamb ubbi na ci VSD loolu archive lay nekk ci lamb dinañ retenir ne saison vendredi samedi dimanche loolu musul am. alhamdulilah sant yàlla rek lépp euh, mooy delloo si ko ci sëriñ Modou. xam ni bijoutier la bokk ci ñun delloo sunu mag bi nga xam ni mooy parrain bi ak bijoutier yi fi teew yëpp. kontaan nañu sëñ Modou suma doomu ndey la yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay kon bu jëlee bés bu mel mi dara jaale ñu ko dara jaale ko Ibrahima Niang mi nga xamante nii sunu mag la sunu sunu lépp la ndax daawaati jéeg man lañ joxoon parrain bi ñu koy toppante di ko toppante. moom mii moo jiitu ci lépp. ci ci troisième édition bi vraiment di ànd ak réseau bi réseau des bijoutiers bi nga xam ne moom laa jiital di wane ni ñun ñëpp benn lañ. kenn gënu ko moom Seydina mi ci ni ñu yàlla baaxal ci la bokk ci la bokk. bébé bis mi ndeysaan ak Ndiassé. bébé waaw mais loolu lii lan la mais mais mais runk bi indiwul lan koy mbot bañ na eh laay laay la la Bébé Bismi ak Ndiassé Ndiassé mi nag école de lutte Mor la ne di ko bëgg a jàpp yomb na de topp sab nawle di waayaan rek eh dëkk na ko bañ na laay laay la la añ na ko bañ na bébé bis mi daan na jaase wax naa la ko xale bi ki l'arrêté la xale bi ki l'arrêté la bébé bis mi daan na jaase bébé bis mi daan na jaase xale bi amagul defet ci lamb ji saan bu écurie Wakaam mooy jàkkaarloog alaaji bu écurie Gana Seras ana rëms ana alaaji baax na rëms ak alaaji la laaj bébé Malick Ndiallo waaw ah, ak Cheikhou Douane Medoune bébé Malick Ndiallo ak Cheikhou Douane bébé Malick Ndiallo moo féete seen càmmoñ Cheikhou Douane moo féete Cheikhou Douane moo gàtt moo nekk ni ek euh, euh, njomboon Casamance kii Casamance la joge Cheikhou Douane bébé Malick Niang lay dajal bébé Malick Niang daan na ko dóor waar kii dafa ñëw dóor si waaram ci làmb ji de bébé Malick Niang daan na ko Niang bu dóor waar daan na ko daan na Cheikhou Douane da ko Douane Reum ak Tapha numéro 2 Reum ak Tapha numéro 2 eh song na ko day melul Tapha Tine song na ko Tapha Tine song na ko mu rasu ndeysaan ba ngoog léegi ñu dugg ci grand combat bi Medoune Diouf Reumsa ak Tapha Tine 2 Tapha Tine 2 moo la wan ginnaaw Tapha Tine 2 Reums eh mat na wër na ko ndomba Tapha moo ko wër ndomba Tapha Tine wër na ko ay laay la tafaatin daan na rëms waaye rëms mi kilos ñu lay daanee nii tafaatin daan na ko tafaatin daan na rëms ñu ngi lewtoo alaaji Medoune Diouf mooy filmé alaaji Lamine Samba mooy wax alaaji Xaadim Samba ngi ci wetam gëdd na ko dóor na 13 niir mën la indi de Thérèse Virement mën la indi de ki wan kanam moo ko daanoon daaw ki wan ginnaaw la ñu daanoon eh rokas na ko laay laay la laa B52 fel na ko waa ji da doon sàcc tànk bi mu dóor ko dóor mu dal ah dóor na ko dóor mu dawul dóor na ko dóor mu dal pourtant li gar mi wax dëgg la de waxkat dëgg boo demee bu la fayu na daan na B52 fayu na oh 14 Ndir il s'appelle 14 Ndir ma Ndiri Faboy daan na ko laa ilaha illallah daanu la billahi fayu na il s'appelle 14 Ndir il n'est pas terre il reste B52 B0 b jaax jërëjëf waaris yi ci combat yu nga xam ni toppal ngeen ñu ko Lamine Samba ñu koy bàyyi xel di ko nuyu au passage moo ko medun combat yooyu nga xam ni ñoo jàll muy reportage boo xam ni euh, moonu ko jottali kon ñu leen ci bàyyi xel bu baax a baax di leen ci nuyu au passage euh, Thérèse combat baa ngi noonu mm-hmm. nga am ci ndam waaw mm-hmm. combat bi damay gërëm rek ñi ma jàppale si combat bi dinañu dinañu gërëm ci kanam mais laata ñuy gërëm ah. bëre woon ngeen moomoon ndam démb yow bëri woon nañ mais amul ndam sama kaw quoi. amul ndam sa kaw loolu du ndam. lu tax nga ne du ndam. parce que danoo bëri. mu daw génn. Mhm. tëdd na mënul loo bëree. Mhm. ñu ñëw arbitre bi yëkkati loxoom njox ko victoire. foofu ndax du kur peñ ba nga dóoroon kon mooy njuumte lii mais démb combat bi bu ñu koy topp am na benn instant jël nga benn ku waaw foofu day wane ni xam liggéey nga ci combat bi ndax da nga jël coup dem ñëwaat. dëgg la combat bi lu metti lan si liggéey. Mhm. Pawal dama ànd ak samay li bonoon yëpp ñu dindi ko si man. Mhm. defaraat ma ba mu baax instant yi ku ma taxawal jàpp naa ne. si mhm. suuf laa la jëmee. Mhm. billaay wala taala. kon dégg ngeen sant ñëpp di gërëm ñëpp nag. kon dégg ngeen ko noonu ku mu taxawal jàpp na ci suuf la la ah. jëmee. waaw euh, Mbaye Tine fi nga toll yow promoteur yi lu ñu wax. waaw ñu ngi wax mais. rek. yan adversaire la ñu la proposé woon. non moom ci Mor Fadam la rek. ci Mor Fadam waaw man nee wax man moom heure boo paree. ak ñoom rek. mais waxul ak yow ci adversaire yi comme ne la Mbaye Tine ñu ngi dégg na nañu bii combat. waaw man moom dama ne ko bàyyi naa lépp sa loxo rek. Mhm. bu sottee rek man dana ma am ma jël leen pare. Mhm. waaw. ping fi nga toll adversaire yi. waaw man saison bu muy door a débuté. Mhm. Euh, promoteur yi contacter nañ ma xam nga. bon mais après déggaatuma leen quoi. yan promoteur ñoo la contacté woon. ku mel ni Serigne moo Niang jotoon jotoon nañu wax. Serigne Modou yàlla def na bëri yu bëri combat bi nga mujj tëgg moo ko bëree. Euh, jëloon nga fi drapeau réseau des bijoutiers. waaw it moo ko tëggoon nga jël ko. waa justement si drapeau bi ma ñëw si boobu. Mhm. drapeau bi bu ma koy bëree maag Ibou Senghor la woon. yaa ak Ibou Senghor. waaw Ibou mii lañ ko tuddee woon. Mhm. léegi nag Ibou Guèye waxoon na drapeau bi ku daan rek da nga am terrain. nañ si mhm. teg terrain quoi. waaw ah, moom parrain bi. dafa ne woon ñaari mbër yi bëreeg. waaw grand combat bi ku daan da lay may terrain. effectivement. Mhm. donc bu ma waxee loolu boobu ba léegi yàlla dogal nag ma daan. Mhm. demoon naa foofu nag ak sama boxeur bi kañ. si bijoutier bi. ñu ñëw pour ñu jox ñu terrain bu mu wax. mais boobu ba léegi dem nañ foofu mën a xaar leen après xam ma nga mag Macky Sall ba yooyu. après mën a dinañ woo ñu demaat foofu mag kañ ji topp nañ terrain bi boobu ba léegi daal. jotuñ si maa ngi lancé. appel ah, ah, daal yaa ngi koy jot li di ko fàttaliwaat. di ko fàttaliwaat terrain bi mm-hmm. sama xel mu ngi si. te mm-hmm. diggoon naa ko sama yaay ba pare. <laughs> yaa ngi dégg. Mm-hmm. xam nga ba léegi mu may laaj terrain bi fu mu toll. bu fekk moom waxoon na terrain bi Lac Rose la nekk. waaw te nag diggee moom bor la quoi. dama def naa si yaakaar lool sama waajur yi tamit def si yaakaar. sawaay dégg na la dégg na la te ñàkkul jàpp naa ni brëgee yow laay waxal rek dégg na la ñàkkul dina la woo dina la woo mais fi ñu toll combat yi nga xam ni ñoom nga war a bëri waaw combat bi fi mu ne nii wax nañ ma ay ay ay ay ay mbër hmm. yi ma war a bëri ba léegi daal dëggaatuma promoteur bi wax si dara. yan mbër lan la proposé woon proposé na ma ay mbër yu bëri sax. si mel ni ñan. non <laughs> foog ma lim quoi xam nga rek. Mhm. te xam mbër yi dañuy lim ñu defee ne yaa ngi seen kaw fekk demewul noonu. non mais loolu ginnaaw promoteur yi moo la seet si ngeen bëgg mhm. combat bi euh, proposé la mbër la foofu njort naa nii mbër mi day jàpp ni war ngeen mën a bëri mu jël avance bi way laa mu xool leneen nga xool leneen. waaw waaw waaw sûrement moom wax na ma daal ay mbër mbër yu bëri sax. Mhm. mais xam nga man daal dama ko bàyyi ba léegi daal maay entraîné bon di di xaar. yaa ngi entraîné di xaar aussi maa ngi am yaakaar aussi bëgg naa bégal sama supporter. Mhm. seetaan fooy flamme si kàttanu yàlla. si yàlla loolu ñu lay béggee dégg na lu ko bëgg a def fooy flamme xam ngeen ni it euh, Pape Abdou Fall production moom it ubbi na saison tey jii euh, du ñu def lu dul àndaat dem fi nga xamante ni moo di stade Iba Mar Diop topp ambiance su journée Pape Abdou Fall production dellu si waat mbokk yi. Omar Sing nuyu la. fay naa la bu baax a baax. am combat war a daje Kaïré 2 noo ko waajalee. waaw waaj comme ni ñu doon waajee yeneen combat yi di ñaan suñu borom may ma ndam moom mi moom ndam yàlla na ma suñu borom may ndam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yéen ñaar seen combat war na mën a neex. waaw dina neex trop. trop dina neex trop. waaw. gis naa ay jamono dëkkante ngeen xeex tooñante. waaw waaw waaw waaw. tey làmb boole leen. waa tey làmb boole ñoom. dina neex. waaw làmb moom nii la dañuy dëkkante làmb boole ñu ñu bëre ko ci cam ak salaam mu jeex amateur yi kontaan loolu lañ ci jublu daal. lu gën a ndee Gabar Singh. waaw Gabar suñu grand la suñu xarit la suñu doomu ndey la. ñu ko ñaanal yàlla suñu borom fay ko xolam rek yàlla ko yàlla may ndam loolu lañ koy ñaanal. yow foo toll. waaw man man ak Naar Sokaas lan taxawal nag waaw man Naar Sokaas. ak Naar Sokaas waaw ñu waaw ñu ngi si wàccaay ñu ngi waaj rek di ñaan yàlla may ñu ndam baax ok maa ngi ak double moteur double naa la. fay naa la Pape Alioune. mais lu waral double moteur. waaw double moteur xoolal mbooloo mi avant tout dama lay nuyoo mbooloo mi sama benn doomu ndey waaw. noo waajalee combat bi. waaw combat pare nañu comme ni ñu pare yeneen combat rek. li ci des bëreetul xaar arbitre sifflé rek ñu jàpp waa ji defal ko affaire. Kile 13 Wasilem Guédiawaye Kile 13 nuyu naa la. fay naa la Pape Aliou. am combat noo ko waajale waaj nañ ko côté yëpp. waaw ak suñu père Fallou. waaw di ñaan yàlla mañ ndam ndam bu sedd bu gaaw ci barke Seydina Mohamed waaw. Rambo nuyu naa la. maa la fay père. ana waa Sëlëm Géejawaay ñu ngi fi rek ginnaaw bi sant yàlla jëm si yoon sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ suñu Bassirou Bara Mbacké combat bi fu mu toll combat ñi ngi koy dox Fallou Ndiaye mi ngi koy dox mais maa ngi bëgg combat nag ñu bëree nañ ñu bëree man may lancé benn sama fan fan di ma wax benn affaire quoi te man loolu néew ma ci du man benn affaire Rambo boo xam na ñu ko doon dégg ci ay mbir du man du man man na waaw du man néew ma sax. waaw jar na leeral ah parce que parce la ci njortoon bari na ba ci man mi ah bu ñu waxantee dëgg. gis nga gis nga kon sant yàlla rek. ñu gëstu ñu xamal ñu ni waaw mais nag maa ñaan yàlla yàlla kat yàlla teggil na. allahumma amiin nattu la suñu borom moo koy teg doomu aadama. ñu mun génn ci loolu nekkaat ci kon ñi lay bëggee li dalal na seen xel. waaw daaw kon si mooy loolu. am na mbante nuyu naa la. waaw maa lay combat noo ko waajalee ah noo waajalee combat bi. waaw Boy Faye maa ngi koy waajal comme ni ma waajalee yeneen combat rek di ñaan yàlla yàlla may ma ci ndam seet guy. yàlla may ma ndam quoi ma ne féere ko géej waaye. loolu di tey. xeex ak bëre. xeex ak bëre. xeex ak beere beer yi kon yegg si leen Soumbédioune. Gaye 2 ngi noonu. Gaye naa la. waaw fay nañ la Pape fay nañ la. am takkusaanu lamb gu rëy noo ko waajale waaw kon ni ñuy waajale yeneen takkusaan rek parce que bés bés la bés du tuut comme yeneen bés rek parce que tey moom comme li may wax rek dañuy indaale Médina indaale Gueule Tapée indaale Fass kon tey du yomb parce que lamb ji ku ne xas na léegi tey moom bésu jëf la rek ku ne xas na say supporters namoon la lool am na bés invité naa leen Walfadjri ngeen daje fa tooñante ak sa adversaire tey muy Gabar Singh. dëgg la dëgg la mais loolu yëpp sant yàlla rek parce que lii lañ ci bëggoon mu réussir fu mu toll senegal ñëpp wuy si nañu xam nga li des moom mooy fulla la ñuy def maak moom xam nga yàlla may ñu ndam ci kawam loolu rek la ñuy ñaan Pape Alé. Kayre dëgg noonu booy Kayre nuyu naa la. Pape Alé maa ngi lay fay. tey beere beere yi am tàkkusaan gu rëy Soumbédioune nu ñu andee Kayre 2. waaw xam nga kii tey cadre la école Soumbédioune dafa bokk ci yaakaar moo tax nag liggéey lañ ko façon liggéey boo xam ne tey dafa war a ñëw rek pour appliquer bu dee doole indi na ko bu dee bëre mu ngi ci moom xeex bi travaillé nañ ko parce que xam nañ ne du doon combat bu yomb waaye tey suñu xel dal na ci moom donc ndam rek lañ koy ñaanal yàlla may ko ndam. mbokk yi maa ngi ak Boy Faye bu écurie Bathie Seras ma war a bëre combat spécial Boy Faye nuyu naa la. waaw ah, fay nañ la Pawalin. noo waajalee combat bi. ah waaw waaj nañ ko ni la war a waajee moom waaj nañ ko ni ñu war a waajee moralement lépp lépp lépp waaj nañ ci bépp fànn daal plan yëpp daal pare nañ ko li ci des mooy dañ koy bàyyi ak suñu borom moom moo yor ndam daal bëre la wala xeex waaw lu mu indi ñu fekk si côté ñoo lu mu indi rek ah lu mu gen ngeen fekk ko ci waaw ñun lépp la ñuy entraîné Aliou Ba nuyu naa la maa ngi lay fay baa lañ tey sa poulain dafa am komba ah, tey sama sama poulain dafa am combat muy Boy Faye dëgg yàlla booy boo xam ne la dëgg yàlla respecté na entraînement yi pare pare nañ ko physiquement moralement psychologiquement techniquement techniquement pare nañ ko mu toll nii li ñu ñaan rek mooy ñu sifflé combat bi at bi sifflé combat bi incha allah ñu daan jël bu set wecc. koy doon mare laay laay

fa naat nooy waaye saaliw beey laay way jinnay kamaramaan yaa nge doomi ndeyum laamin way doomi ndeyum papa alin mbay laay way newo mana xem mbay papa alin mbayo yaa ta jopa ñaaw li nuy toppe doomi garmi ngi ci yow muñ lu metti looy goreet ba nu weg la yàq bu rëy ci mu mag lay bawoo ko dex sa saana wan nga ko ngor yaa bëggu ba Babdu ginnaaw bu ma la nuyoo tey ngeen ubbi seen saison journée tey bi loo ciy wax waaw sant yàlla gërëm yàlla bu baax gërëm sama ay wayjur di leen ñaanal fi ñu tëdd suuf sedda leen fa di gërëm képp kuy mbër gërëm képp kuy amateur képp kuy journaliste ak communicateur ak képp koo xam ne rek yaa ngi nooyee Pape Abdou Fall maa ngi lay gërëm di la sant ñu com di ñaan yàlla ñu commencé ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin lii nag salaamaaleykum la rek ñu ngi ñëwaat ak yeneen ñeenti combat dëgg bu ko Sénégal gisee ca dëgg-dëgg dinañ ñu gën a naw mais boo xool salaamaaleykum bi am na solo combat yi neex na amateur yi wuy si nañ. waaw loolu sant yàlla rek loolu day wane vraiment liggéey bu rafet bi ngeen di def ci làmb lenn rek moo ko yàq boo xoolee caméraman bi mën na ko jël ku daan ak ku daanu yëpp daal di ànd ak sa mbooloo loolu rafetul ci làmb loolu taaralul làmb loolu daal dañ ciy lancer un appel vraiment ñu jëm ko changer jéem a changer doxalin parce que loolu du honorer làmb mais vraiment ñu ngi gërëm képp koo xam ne rek si nga ñu képp koo xam ni ca dëgg-dëgg yaa ngi bëgg Pape Abdou Fall rek maa ngi lay gërëm di la sant di jox rendez-vous le 31 janvier incha euh, président Aldo bu Kër Massar. waaw euh, maa ngi lay fay euh, Pape tey moom làmb ji vraiment neex na surtout ni mu ubbee nii surtout combat bii nga xam ne mooy grand combat bi ñaari xale yu soxlante lañu. Hmm. Kayre de Gabar Singh. waaw Kayre de Gabar xam nga ñoom ñaar dañoo dañoo am dañoo laale ba pare. mais tey li nga xam ne moom laa gis ci làmb ji ku gën a tey rek yaa moom làmb ji parce que ñoom ñaar tolloo nañ doole te soxlante nañu mais bu ma leen doon conseillé bu ma nekkoon seen entraîneur dama leen naan nañu nañu tey ku ëpp patience rek yaay moom la combat bi. Fatim Tabax nuyu naa la. Papa Alioune maa saison bi ubbi na ñu leen ci ndokkeel di leen ci ñaanal jàmm ginaaw loolu te ji takkusaanu làmb gu mag Papa Abdou Fall tëgg ko grand combat bi. war a dox diggante Kairé 2 ak Gabar Singh ban jàngat nga ci def. Euh, waaw Pape Aline dama lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla euh, di rafetlu tamit sa liggéey fu ñu toll euh, di la wax rek muy doon combat bu doy waar ndax xam nga toujours jot ki nga xam ne moom mooy Gabar Singh naa nit ñi toujours duñ ko def favori te mbër la moo xam ne nii mbër mu dangereux mbër la moo xam ne nii mbër mu jafee daan tey su ma doon conseillé ki nga xam ne nii moom mooy Kairé 2 ndax boo xoolee ñoom ñaar. ci seen face à face Kayra 2 dafa mel na moom mooy euh, gabarsin moom mooy moom mooy gabarsin waaye nag ku seetaan keroog gabarsin ak ki nga xam ne ni moom mooy euh, jam teeri xam ne gabarsin mbër kaamil la jërëjëf euh, Papa Aline maa ngi lay fay mbay di la nuyu di nuyu Saliou Bey sunu xarit El Hadj ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaan yàlla rappal kaale gi di la bu baax di nuyu Walfadjri gépp di wax ni saison 2004 2015 li ñuy ñaan yàlla mooy zéro violence yàlla bu ci benn violence am ndaxte làmb toll na foo xam ni kenn waruñoo liñ ñuy jiiñ bu nu ko nangu te combat yi ma gis tey jii bu ci nekk doyoon na grand combat rawatina Gabar Singh ak Kayre Junior nee na ma tey du xeex day bëre te Kayre ku bëgg a bëre moom faaw nga xeex loolu rek ma ci jaaxal mbay waaye daal xam naa ni lu nu xeexee ci bëre lay jeexee xaw ma na kuy daan. waaye daal sama waaj nee na ma xam ne kii daan man ko gën a mu ne ma kenn kay daan kenn ki loolu nag yomb na lool <laughs> jërëjëf. jërëjëf combat la boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ te mën na bëre te combat la boo xamante ne nii lu ne mën na cee am euh, euh, ku ci juum rek ñoom ñaar daanu di wax ni rek nañ ko bëri ci fulla fayda ak jom que le meilleur gagne. waaw Pape Alioune ñu ngi tamit El Hadj Bey nga xamante ni dafa demoon tey jii siyaara ji Seydina Mohamed te nee nañu ku sànni jamra mucc na ku daw Safa ak Marwa texe na. ñoo ngi fii tey ci stade bi ñuy wax stadium Iba Mar Diop. combat lay doon boo xamante ni ñoom ñaar lañ doon woote ñoom ñaar ci xeex bu njëkk ba mooy am ci tey jii dana mel ni njariñam te liy wër te man gëm naa ne ñoom ñaar ku ci dof dof lu ba jël sa bu dalee dëgg fi mu war a dal ñàkk nga sa combat li wér te wóor mooy képp ku ci gën a tey ñoom ñaar gën a dal gën a bëgg combat bi kooku moo am gën a am chance moromam ki gën a xam daa gën a topp xeex bi. jërëjëf loolu daal moom maa la ko wax. saison bi ubbi na gay naa ko fu mu toll. maa ngi sant yàlla ba yor waaw. waaw Babalil moo xam nga keroog damaa gis sama combat ñu ngi ko publicité ñu ngi ko def journal suñu làmb mais du yoon man boo ma joxul avance war a publicité sama combat man avance. maa ngi tala promoteur yi yëpp ñu tëgg sama combat ngir yàlla ma ngi woo ñëpp aw ma combat jëluma avance aw ma combat waaw ma war a bëreel fi nga ah, diisul diisul diisul père man amatul lu diis si man kii mu doori ngaay booy ngaay bu ñëw war a bëre kati si ñëw a bëre ñun ñëpp ñëw bëre waaw ma ne waaw mais nag li li li gars yi de public sama combat loolu rafetul la ba am ndam seddu waaw. ndaw ndam loolu. ndam bu baax sax ndaw bu kawe sama njot waaw di gërëm ñu ma doon jàppale ñëpp waa école Lutte ak Guèye waa waa gërëm. na Alioune Diop 2 Boulane Sarr samp ndënd. Alioune Diop 2 Boulane moo samp noonu. Alioune Diop de loo amoo doole li nga limousine kon dégg ko noonu Alioune de Boulal Sarr limousine dëkk ko euh, liggéey bi door na looy dolli mbër yi rawatina fans club yi nga xam ne ñoo ne seen ginnaaw. e mbër yi de kuy jóg di liggéeyi liñ lay wa njëkk wax mooy contrat ba nga signé na nga góorgóorlu respecté ko. nit ñu ci yare jàngal ñu ko. pour su wax jotee nga mun a siggi xool ak ki nga séqaloon mun a wax ne lang nga ma waxoon def naa lépp ñaareel bi mooy fan si club yi ñu ngi leen di lancer appel sponsor buggu nay jàppale promoteur mais loolooy tax aussi mbër mun a am xaalis bu xaw a takku ci contrat mais sponsor mënul di def xaalisam ci stade bu nit nekkul soo gisee balaa combat yi commencé tribune yi day fees mais combat bu jot rek mbër mi su paree ñi ma àndaloon génn ñibbi loolu du liy taaral làmb ñu nga leen di lancer appel. daan ak ñoom pour ñuy toog di seetaan combat yëpp parce que foofu loolu mooy njëriñ. jërëjëf euh, waari si ci combat yi nga xam ne toppal ngeen ñu ko mais ba tey dañuy des ci combat euh, mbaytin mi toog dañuy xool ñaari combat benn bi mu di mbaytin ñàq jariñu bi ci topp euh, jetli ak mbaytin kon ñu ànd ak waari ci topp combat yi nga xam ne mbaytin moom la mujjee bëre euh, mbaytin ginnaaw bu nu ñëwee ci combat yooyu def ci jàngat ñu gën a waxtaan mais jotaayu làmb ji yéen seen biir gis ngeen combat fi ngeen toog ñu xool ñu xoolu combat dellu si samedi tey juróom-ñaari fan ci weeru juillet atum 2012 stadium Iba Mar Diop journée papa production baa ngi wax ak ñoom li ma leen di yabee ñoom ñaar ku ci ne sàmmal ma ci kaw tabayal ma xel ci fuuf dooru mbër xajul ci kanam waaye it mbër xajul ci yel ndeysaan baytin toj na neen ñàkk jariñoo am na seconde gu mu sànni am sunguf su mu sotti wuré ba dem na kër waxi mag dénkaane la fokk leen am mbaytin ak ñàkk jariñu ñu ngi leew too ñoom ñaar ñàkk jariñu féete ndijoor mbaytin féete càmmoñ ñu ngi leew too leew too bu tey kurpañ dalagul conga amagul ñu ngi leew too ñoom ñaar Mbaye Tine mel na ni ku tegg tànk ba ñëwaat Mbaye Tine dox na tudd del Mbaye Tine ak ñàkk jariñu ñu ngi dégloon te ñoom ñaar ñaq jariñu bu caarooy mbooloo moonu woon ginnaaw Mbaye Tine école de lutte Mor Fadam la nu jàkkaarloo jàppante baaraam ku ci ne dóor nga sama morom jariñu ñëw na Mbaye Tine jël na ko daje nañu ñoom ñaar ñaari mbëri daje nañu ñàkk jariñoo ngi dóor noonu jàppante nañu ñoom ñaar ñaq jariñu door na léegi jariñu dooraat na Mbaye Tine siggi na ndaysaan bëre bu metti la ñu bëre Mbaye ñaq jariñu samedi tey juróom-ñaari fan ci weeru juillet atum 2012 stadium Iba Mar Diop jàppante nañu ñoom ñaar arbitre atte na combat ba ñaari mbër yi atte nañu ñaari mbër yi kon gaañu Mbaye Tine ay faju noonu ndaysaan ñaq jariñu moo door léegi ndaysaan Mbaye Tine tibb na suuf ñu ngi dégloo tey ñu ñoom ñaar Mbaye Tine na Mbaye Tine moo dóor léegi moom la ñu jàkkaar lool Saliou Beng leen koy toppal ndeysaan ñàkk jariñu dóor na ñàkk jariñu dóor na ku ci ne ah, na fa jéem a jël Mbaye Tine rasu da ngay mbapat ñoom ñaar atte nañu combat ba atte ñaari mbëri yàq jari dem ca docteur ba yàq jari ñooy dem ca docteur ba noonu saan ñaari mbëri xeex nañu xeex bu metti saan non bul jooy waxal bul jooy waxal. kii man moo may waa Saaman ñoom Ibou Ndaw. wax ma noo bëree. ma bëree ma jëlee combat bi xam ni trois jaraaf amul ma baax ko forcé combat bi jeex. waaye na yàlla fay. mais lu tax mu yaay lu tax mu yaay. non la te dafa liggéey. combat du caaxaan daal daal du caaxaan. waaye góor yu gaañoo ñoom. ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre. ndeysaane sayam bi Omar Diop tournée PABC lañ leen di toppal arbitre baa ngi wax ak ñoom Boy Ba Mbara bëre njool ak ndaama la. waaw loolu ndaama toujours ndaama li laa ragal. toujours ndaama li ngay ragal. waaw parce que ndaama day song. day song ndaama bés bu bàyyee songam rek yàqule. parce que tànk yi bu ñu ko tànk yi day gàtt du mun a jafandu waaye njool day tëq day nooju day day day botti waaw. dégg ngeen jàngat boobu Boy Ba Mbara defal ñu ko kon ñu topp combat bi. Boy Bambara boo xoolee ñoom ñaar. waaw kon ñu topp seet ngi dégloon te ñoom ñaar ñaari mbër yaa ngi dégloon te Boy Bambara boo ko toppee ba tey combat bu yàgg la ñu bëri. waaw ñoom ñaar ñëpp dañuy jël seen euh, responsabilité booy bëri da nga jël sa responsabilité nii laa bëgg def mais euh, parce que dóor bee ëpp bëre bi fi mu ne. arbitre yaa teel na ñaari mbër nga ni dóor bi ëpp bëre bi. dóor bi moo ëpp parce que ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp ku nekk day seet sa morom lu keneen ki préparé keneen ki dindi ko mais il faut nga jël sa responsabilité ni lii laa bëgg a def. kon ñaari mbëri ñu ngi noonu ci docteur. Boy Bambara jàngat bi mu xam ni defal na nañu ko. mbaytin ak Zetli taxawaat nañu ñoom ñaar. bi sifflé na combat ba ah arbitre dafa sifflé gis nga Zetli daw na fekki ko. Jet Li mooy dóor noonu Mbaye Tine cokkaas na Jet Li dóor na waaw juyaloon nañu Mbaye Tine bëtt na ko jël na ko jàppante nañu jàppante nañu Jet Li ngay dóor Mbaye dafa téye Jet Li téye na ñu ngi dégloon te ñoom ñaar ah Jet Li dóor na léegi ca ker nopp ba Jet Li xëcc na ko teq ko jég ko Mbaye bañ na Jet Li ak Mbaye Tine ah ah daan na Jet Li Mbaye Tine ba école de moo daan Jet Li bu xam sa cosaan nga dañuy xeex Jet dafa topp xeex bi Mbaye Tine Mbaye Tine kon gis nga ko sa ñaari combat gi noonu ñu topp leen ñaar muy topp boo xam li ñu ci jàngat mooy làmb benn bi danga nga ci am ndam bi ci des da nga ci am defet hmm, loo wax ci combat bi nga bëri jet li combat bu moom mënu parce que waa géej waay taxaw woon la waaw parce dama jëloon ñaari defet dama nekkoon ci huit combat ñu jox ma ñax ma am defet ma ñëw ñoom Ilimaan xam nga di ma si jàppale ak ñoom ci am géej waay yëpp di ma si jàppale ma ñëw gaa yëpp jël favori jox ko li ma entraîné ma jox ko li mais xëy na ak seen conseil rek man dama jaar mbapat de ma jaar mbapat xëy na ba may jël ñax am na nu mu fa demee rek du lépp luñ mën a wax mais alhamdulilah ba ngay jël ñax nu mu fa demee rek waaw nañ bàyyi loolu rek nga ñëwoon mu gën la jekk keroog wala lan la non yàlla baax na daal. waaw comme génn naa ci daal dañuy sant rek comme ñu ngi ci yoon bi. nañ xool. nañ xool ñu ngi ci man musuma delloo benn avance. musuma delloo avance. man muy kii muy keneen ku ñu ma jox la may bëre. mais seen jotaay bi gis ngeen ni woon ngeen mën a bëre seen biir. déggoo ma de. ma ne man ku ñu ma jox ma bëre. xam nga nit ki bu ñu lay jox dañ la jox koo xam ne day niroog yow am coow man kenn du ma tëggal te amul coow géej waaye yëpp dañ may dar indi ma estaat. Mhm. kon dama bëgg ku ñu may jox. na ñëw à la comme man fi mu nekk amul lu may seral ci biir géew. damay ñëw dëggal boppam. da ngay da ngay dëggal sa bopp nga ñàkk a dëggal sa bopp damay sa bopp ñëw jël si li ma moom. Mhm. dama di xale toll ci dama koy def. Mhm. waaw. King Kong jotaay bi gis nga fi komba sa adversaire wala. non jotaay bi <laughs> yaakaar naa ne fii gis naa fi ku si am nga sa yoon quoi. da nga jàpp ni bokk bokk leen yoon. Ah, waaw gars yi na ku ne liggéey rek. na ku ne liggéey. waaw lu moom xam naa ne bu yàggee moom dinañ ko mën a def. bu yàggee di ngeen ko mën a def. Thérèse loolu ci tënk waaw man moom. Mhm. pare naa pour ñëpp. pare nga pour ñëpp pour ñëpp. Mhm. kon ku la ci làmb boole toll nga bëri moom. képp koo xamante ne bokkuñu ikiri moom. Mhm. ñaan naa yàlla bëri ak yow. sama du ma bëri ñoom mais keneen koo xamante ne yàlla boole boo taxawee dëggal sa bopp ñu bëre. ngeen bëre euh, dañuy àndaat ak waa Régis topp combat yoo xam ni ba tey ñu ngi bokk ci journée Pape Abdou Fall production lu ci mel ni komba bébé Julde ak ki nga xamante ni moo di Gama ji junior euh, xool komba John ak Pape Faye ginnaaw loolu komba clé 13 arobase ñu toftal ci combat booy Faye ak Njambaan 2 ñu ànd ak waa Régis topp combat yooyu dellu siwaat Bébé Diouldé Gamady ndeysaan journée Pape Abdou Fall production lañ leen di toppal mbokk yi moom it muy ubbi saison tey di ko ci nuyu di ko ci ndokkeel mbokk staff Pape Abdou Fall production Julaxan Ndiaye jëmel ni aar équipe yëpp ñu leen ciy nuyu Bébé de Gamady Bébé Diouldé moo jógee écurie Cheikh Mbaba Gamady moo jógee lébu gi Gamady moo yor ngembal vax li Bébé Diouldé yor ngembalu xonk mbokk yi ñu ngi ci combat bi. combat bi dimanche juróom-ñaari fan ci weeru décembre atum 2014 bi ca stade Iba Mar Diop daje noonu Bébé Diouldé ak Gamaaji Bébé Diouldé ak Gamaaji ñoom ñaar Bébé Diouldé ak daje noonu ñoom ñaar Bébé Diouldé moo dóor léegi moon Gamaa ji la ñu jàkkaar lool ña nga daje ñoom ñaar Bébé Diouldé ji ñaari mbëri daje nanu da nga jàppante ñaar Gamaa ji la ñu jàkkaar lool Bébé Diouldé moon woon ginnaaw tey ñoom ñaar ñaari mbër yaa ngi dégloonte Mbéjul de léegi gamaa ji bañ nga jàppante ñoom ñaar di dégloon te ñoom ñaar gamaa ji ma wàcc léegi ca tànk ba bébé jul de bañ day jàppante bébé jul de gamaa ji mooy door noonu gamaa ji moo dóor noonu bébé jul de gamaa Doudou jéem na ko jël Gamady bañ dañ nga jàppante te ñoom ñaar yaa ngi déglu sa morom jàppante ah, de daan na Gamady ba ca wet ga teg ko ànd ak moom Bébé Diouldé daan na Gamady tan Gamady moo sukk noonu Bébé Diouldé ba ngay fecc ca xal ca des. ndeysaan Gama jëlee lu jël si noonu bébé Diouldé am na butéel bu ñu koy sotti ndeysaan ndeysaan bébé Diouldé yenn na entraîneur ba ndeysaan bébé Diouldé ak Gama ji kon bëri na ndeysaan am ndam moo wax yenn entraîneur ba muy dëgg dënn ba noonu. Pape Faye ak John Kara John Kara am na morceau gu mu bàyyi mu waddee ginnaaw booy xool am na lu xonk am na lu ñuul. ah John Kara moo jokkas moo sànni léegi Pape Faye teggi tànkam dóor na Pape fekki na ko John Kara déplacé wu na Pape Faye tibb na suuf raxasu ñu ngi léew too ñaari fan ci weeru décembre atum 2014 fii ci stade dóor na génnaat John Kara dóor moo dóor noonu Pape Faye moo féete ndijoor John Kara dóor na Pape Faye déplacé wu Pape Faye ak John Kara ñaari mbëri jàppante nañu baaraam ñaari mbëri daje nañu jàppante. ah John dóor na Pape Faye dóor na bàyyantewaat noonu ah John Kara moo dóor noonu Pape Faye ak John Kara ndeysaan ndeysaan ñaari xale yi ku ci nekk ñoom ñaar dëggal boppam dajawaat nañu dajawaat nañu songoo noonu ñaari mbëri daje nañu Pape Faye ak Pape Faye ak John Kera dajewaat nañu ñoom ñaar Pape Faye ak John Kera dajewaat nañu ñoom ñaar Pape Faye ngay door John Kera ngay door Pape Faye ak John Kera ah Pape door noonu John Kera ngay fayu. ah John Kara door na ko mu rëb ah combat ba jeex na John Kara daan na combat ba jeex na John Kara daan na Pape Faye. waaye Pape Aline bi combat musu fi am. ma ni lii mooy lan Kara ngeen di dégg. ah. ñaan ak John Kara waaw. waaw xam nga mbow nga ni. waaw xam nga John Kara dañoo liggéey ak moom. ci liggéey boo xamante ni xamoon naa ni lamb ji fii lay mujje ndax école du lutte Balla Gaye la ne te roi des arènes foofu la dëkk kon John Kara bu dikkee fii gàcce nga. ak seen gabar su fekkee kayre dee ña ngay tooñante xàll wa ca des. kile 13 ak arobase ñaari mbëri taxaw nanu kile moo féete ndijoor arobase féete càmmoñ. arobase moo féete ndijoor kile 13 féete càmmoñ taxaw nanu ñoom ñaar arobase ndeysaan ndeysaan ñuy xamal ni rakk la ci doomu jalaw te ngéej arobase kile 13. arbitre bi nee na bëri leen mbokk yi journée Pape Abdou Fall production dimanche juróom-ñaari fan ci weeru décembre 2014 mbokk yi fii ci stade Iba Mar Diop ki le 13 ak arobase ñu ngi léewtoo le 13 ak arobase ki le 13 ak arobase ki le 13 ak arobas moor ngembal weex li ki la treize moor ngembal waxsele arbitre baa ngi wax ak ñaari mbëri arbitre ngi wax ak ñoom ki la treize ak arobas ñu ngi leew too ñoom ñaar yaa ngi leew too journée Pape Abdou Fall production arobas moo dóor arobas dóor na dañu ki la treize takk na ko ki la treize takk na ko moot na ko ki la treize ko dóor daw fekki ko jël ko takk ko mboot ko Arobase tëdd na noonu le treize am na lu ñu koy sotti le treize am na lu ñu koy sotti Alioune Diop dëbb lan sar samp ndënd dimanche juróom-ñaari fan weeru décembre atum 2014 ci stade Iba Mar Diop ñaari mbir daje noonu Boy Faye ak Niambane 2 daje noonu ñoom ñaar Arbitre baa ngi ñoom arbitre baa ngi wax ak ñoom da nga jàppante ñambante Boy Faye ñambante ñaari mbëri daje nanu Boy moo dóor ñambante moom it dóor bi am na lu mu wax ak ñambante Boy Faye ñambante ba jàppante ñambante moo woon ginnaaw Boy Faye moo jóge écurie Bathie Seras Ñambaan 2 jóge écurie Mor Fadam ñaari bëri ña nga jàppante ñoom ñaar jàpp nga